pour combat Balla Gaye ak Bombardier signé nañu démb pour combat bi ñu war ko def pay per view ci seen affiche point com. ah kon daw kon dawaat na ñëw ci yow alhamdulilah. <laughs> ñun de bii passé xaw na noo dee ñun. <laughs> waa léegi Boz loolu moom. loolu moom duñ ñu may loolu moom duñ ñu may ñu wax ci tuuti. waa boo eggalee ba pare. waaw mais non dama bëgg loolu dinañ jël temps. dinañ jël temps mhm. décortiquer côté boobu bi ngeen bëgg a dugg <laughs> mais dama bëgg. ngeen ñëwal ma ci Balla Gaye hmm. Bombardier démb hmm. bu ñu si bi ak Balla ak ak Gaston production ba pare dem nañu jëli ci Balla Gaye euh, aéroport gis ngeen Balla Gaye mu wàcc ma bëgg yéen ñetti spécialistes yi ngeen wax ma naka ngeen jàngate hmm. euh, Balla Gaye wàcc at euh, nu nu mu nu mu nu mu <laughs> mënatuma sax non dafa mel ni chinois yi laay seen ñuy ñëw de <laughs> waaw maa ngi seen chinois yi ñu ngi ñëw Papa Diop eh? ñu ñu ñu gis ngeen Balla Gaye nu mu atterrir aéroport ah. eh, bu Balla Gaye atterrir aéroport Diass gis ngeen nga uh-huh. indaale gis nga discours bu Balla Gaye indaale ma bëgg a Papa Diop numéro deux nga ñëwal ma ci balaa may jox kàddu gi Mourtala ak coach ok Papa xam nga démb démb dégg naa la nga wax nga def ci live démb xaw ma bër ki démb ci guddi nga nekk ci daralu Balla juuf ngeen ci def live maa ngi koy seetaan mhm. nga laaj bala Diouf ne ko boo tëddan di ba guddi boo tëddan ba guddi wala nga nekk seetaanoo lamb mhm. ji ñu ne mu daanu am na mhm. koo naan moo dóor mu daanu premièrement foofu laa lay tontu noonu su ma tëddan ba guddi dégg ñu ne la làmb jooju jeexe na dóor mu daanu dama naan bomba jee dóor Balla Gaye mu daanu man d'accorduma de non diglul damay demal ak yow feneen nag diglul damay demal ak yow feneen ba pare xam nga dinaa la analyser combat bi dinañu ci waxtaan mais dama damay wax tontu góos ci live ku amoon bërki démb ci live bu amoon bërki démb dama ciy tontu góos léegi nag yow li nga may laaj nga ne ma yow nu ma gisee état Balla Balla seetaan naa vidéo yi mu nekk euh, France doon naa ko mhm. seetaan daan naa waxtaan ak tamit ay entraîneur am tamit dañuy déggante liggéey na France mais combat Balla Gaye ak Bombardier dafa am lu ci am Balla dafa dem liggéey mais moom bi muy dem di liggéey ki tax muy liggéey kooku moom fekk na mu pare nee na Bombardier moom pare na Bombardier moom yaakaar naa uh-huh. ni ma ko dégg muy wax moom suba sax boo ko woowoon ne ko kaay bëreeg Bombardier xam naa ci moom fit boo xamante boo ko neen suba ngay bëri feeg Balla Gaye mu ànd ak mbokkam ñëw taxaw stade. léegi Beuz da ngaa bëgg nu dugg ci bala gay tuuti laa ci tuuti ci préparation bi nga wax wala ci combat ba nga bëgg ñu wax ci. non xaaral kii ñëw Papa Diop moom dafa tarxiis dugg ci combat bi. bàyyi ko ah yow ci ah yow kon ci préparation nga ñëw kon nan dem ci préparation. moo tax may laaj quoi dama xam rek. waaw léegi kon man maa génn gaam waa léegi léegi léegi préparation ok préparation Balla Gaye li ma gis maanaam forma bi mu jële woon Sénégal par rapport ak bi mu jógee bi mu jëlee eh, France indi ko Sénégal liggéey na ndax seetaan naa ay vidéo rek heure yi mu daan dugg entraînement di dem di entraînement dama doon dégg grand Ali Ndiaye mu naan ma maa ngi nii dugg nii maag Balla Gaye maa ma xam heure yi muy entraîné ak heure yi ni génn buñ génn dañuy déggante buy dugg dañuy déggante kon xam naan liggéey na mhm. liggéey na entraîné na mais ci kaw est que moom lam doon uti am na ko wala lam genn wàll gi am loolu leeraguñu ñëw na nag ak sérénité boo xamante dal wax ak journaliste yi ci njekk yuuxuwut wax waxi faydaam ci dal ak sérénité dem mais est-ce que doon ut cent pour cent am na ko ndax moom day dellu n'est-ce pas moom day dellu bu bëree ba pare day dellu ndax dix mois la fa signé xaw ma li ma dégg. waaw dina pas léegi ah. daal loolu xamaguñu mais yaakaaru ba ni léegi lay doon. waaw mais bu bëree ba pare comme six mois la fa pare te bu bëree ba pare moo booy ña nga ci tellu kon day dellu n'est-ce pas mais daal. a da nga MMA da ngay ñëw walla ma ñëw. demoon. bàyyi bàyyi MMA bàyyi bàyyi Papa Diop ñëwul parce que Papa Diop sa yaram tàng na quoi instant yi. non bàyyi leen ñu dem bàyyi leen ñu dem bàyyi leen ñu dem demal demal Talla demal Talla. di ziar Bamba El Capo borom chinois yi di aussi Cheikh Nassi. moom def na lu xool nee na ma man benn. bës man benn wax rek laa lay wax ci Balla Gaye 2 man. waaw en tant que Moutala sama xam-xam bu gàtt laa lay wax de. waaw damaa dégg ci laa ma ñam mu ni pa mais Balla Gaye 2 mu ni pare naa pare. Hmm. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 moo dégg ci laa ma mu ni pare naa. Hmm. bës Balla Gaye 2 mu pare du neex a daan. Balla Gaye 2 mu la ne pare naa. bu pare. Balla Gaye 2 mu pare du neex a daan. bu fekkoon da ngaa dugg ci combat bi mais comme préparation nga wax ci préparation laa yem. mais bis bu ñu ëttee. dugg ci combat bi. waaw parce beneen live bu ñu war a am. parce que ok ok ok ok. non damaa nangoog yow moo tax ma leen moo tax ma yem ca prépa ni la dama déglu ci làmmiñam dama ko seetaan ci làmmiñam mais yóbbu ci seetaan bi kase parce que dama ko seetaan dama ko seetaan après mu ni pare naa cent pour cent pare naa lépp mais Balla Gaye de mu pare laa ne Balla Gaye du neex daan man Mourtala maa la wax li waaw. mais xam nga man la mooy question bi. waaw saa waay day posé question ñu wax ci préparation lamb bi wala dañuy war a wax ci préparation. préparation wu ji ci non ci préparation bi lan toll nii. ci préparation bi lan toll. lu mu laaj itam dafa am solo. est-ce que Balla Gaye dafa war a wax pare naa rek Mourtalla jàpp ni. non Balla Gaye ne mu ne man Mourtalla maa la ne dama la ni man Mourtalla maa la ne Balla Gaye de mu ne ni pare naa. pare naa ak ni ma ko gisee xam nga pare naa xam nga wax. bu woppee ne dégg gi wér parce que man nit buy wax tamit dinaa xool manière bi ngay waxee fa la wax ji toll dinaa ko posé mais bi ma xoolee temps bi Balla Gaye 2 waxee ak li mu wàccee dama la ne Balla Gaye ak niveau bi mu toll nii ak préparation bi mu jóge nii Balla Gaye Balla Gaye 2 du neex Bombardier daan ko. mais est-ce que yow gis nga préparation bi vidéo YouTube yi nga gis. est-ce que dama la ne xam nga man de vidéo YouTube du ma ci sax euh, dinaa ci sax euh, gis nga bës dafa loo xamante ne man. vidéo yi de non dama la gis man ni ngay gisee nii. man vidéo napp ma man vidéo napp ma rek gis naa ñoo xam ne bu journaliste man vidéo napp ma man man ngaa préparé dara dugal ko ci YouTube loolu yàgg naa ko seetaan ci mbër mbër yi nax nan na ci ba loolu kenn mënatuma cee nax préparé benn une heure de temps cinq minutes dix minutes yooyu Balla Gaye deux minutes dafa demoon fay alal ju bari pour liggéey man weesu naa niveau boobu mais dama la ni Balla Gaye Balla gay deux mi taxaw pare cent pour cent ñi pare naa ma xool ko ak temps bi ma waxee pare naa ak li ma gis ci moom physiquement Balla Gaye 2 Bombardier ci moom sens bu combat bu jubsee nag ci combat bi bu ñu dinaa la wax benn bi boo xam ne na ko téye bu baax a baax man du ma yam ci analyser de man garaawul man ab jiw laa ba ëgg si ci waxu bis bu ñu demee ba ëgg si càppaandaal gi. ba analyser combat bi gëstu. man dinaa la wax ne la thème yii ci la Balla Gaye 2 ci ñetti technique yii ci la Balla Gaye 2 di daan Bombardier tuddu ci génn te man ma clairement la wax loolu. loolu ci waxtaan. xamante ne keroog Papa Diop de moo ko fi sulli. waaw question bu ay bu Cheikh naa la woon keroog. ñu ne bu dégg mu daanu seetaanoo combat bi kan lañ kan ngay wax ni moo dóor mu daanu. Balla Gaye moo Balla Gaye do Balla bu dee door mu daanu am na ci man baala Gaye de laa gis mu dóor Bombardier mu daanu. tegal sa baaraam foofu tey du ma dugg ci combat bi mais passe boobu dinañ ko te ko tike après coach ma jox la kàddu gi. bu ko Bombardier bu ko Bombardier physique bi baax man kay loolu dinañ ci dem waaye bu ko Bombardier yóotoo ak physique day wér bu day ñëw day day day ci suuf. coach Gallas Mourtala mais kii euh, euh, coach bëgg naa avant ñu wax waxu dóor mu daanu parce que yéen ñett ñëpp di ngeen wax di ngeen justifier lu tax ngeen wax ni ki ngeen jàpp ni mooy dóor mu daanu mais ñëwul ma ci biir combat bi ci biir préparation bi plutôt préparation Balla Gaye 2 coach bañ jàngat nga ciy def ak nu mu yegsee Dakar. ah damay wax ne. xam nga souvent da ngay wax na ñu commencé di di di ah. ah. mais dama leen wax ne bu fekkeen damay wax en tant que combattant en tant que sportif en tant que expérience. tey Balla Gaye bu defee temps de carrière ci làmb mi ngi soog a découvrir lan mooy INSEP sénégalais yi tamit tour bi ak Europe bi. léeral seeni bopp dama lay expliquer. yow dund Canada da ngay dem gym fit for life wala les frères Grant les champions du monde de boxe tu payes un abonnement de six mois d'entraînement nga yóbbu sa ñaari coach ñetti coach heure bi ngay dugg ci salle bi professionnel yi nekkuñu fa nga wax naa leen ko nee naa leen damay gis Balla Gaye préparation wu combat xaw ma nag leneen lu mu fa def mais li ma gis ci YouTube yëpp am na yoo xam ne man dama def même ay vidéo ne lii coach bi fekkee ne lii la koy wan mi ngi koy nax c'est pas comme ça ça marche pas. mais est-ce que mais est-ce liggéey réellement wane na ko. xaaral xaaral non dama lay wax dama naan boo amee combat il faut être serein il faut yaa ngi dégg gis nga le BG de TV là qu'ils ont fait là pour montrer comment tu peux avoir un combat tu montes tes techniques déjà bu fekkee da nga da ngay a nax nit ki nit ki mu mën nga koo nax ci cinq minutes mais pas ci vingt minutes tu comprends dama ne préparation combat wu Balla bi muy dem ak léegi la mooy différence bi mën nga ma ko wax mën naa la ko wax kay la mooy différence bi Balla bi muy dem dañu mbët dama te bi muy te bi mu accès dañu teeng di Balla Gaye man li ma gis laa la wax bi muy bi muy bi muy tàggoo bi muy tàggoo dañu ko bi muy ñëw dañu kenn. ma réponse continue attends dañ koy teg ci yoon léegi. dama lay poser question boo répondre rek ma continuer dama lay expliquer ne la. waaw boo demee Paris wala nga dem Mbañceew. waaw wala nga dem key Kédougou nga def sa musculation da nga naan teg loolu ñëpp ko xam. Mhm. Lac de Guiers ngi noonu teg la defoon lu ne woon Sénégal la ne woon di ko fa defee mais dama leen di mhm. ne leen. ne leen liy préparé combat ak liy dugg ci biir combat. waaw. ñun liñ gis ci vidéo Balla Gaye gis yow sama waa ji kaay na ma wax la benn de la mu doon préparé dina jafe bët gis ko nag parce que nit ki mën naa préparé cardiaque préparé préparé préparé doole xaar ma wax la sama waa ji nan waxtaan xam nga yow yaa ma gën a xam ci yenn genre affaire kii mais ci waxtaan. parce que dama lay wax ñun dañuy xeex xamul sama la dañuy xeex dañuy xeex di ànd ak ne dañuy xeex di préparer ay compétition. du tax ma ragal naa de meeru ma wax la dëgg mais dama la ni. waa xaaral ma pare xaaral ma daane wuy ma dafa ndànk bi yoon damay daane bàyyi ma daane la fi ne parce que là tu rentres dans mon domaine dama lay expliquer ne mbër woo dafa am ñu gën a doon Balla Gaye champion ñoo fi def ay vidéo ñu leen di gis te dañ leen ciy jàng. mais ci kaw bu neex la. am na loo xam ne mën nga ko bañ a wane avant combat mën ko wane mën nga ko denc avant combat ndax Balla Gaye doon naa la dégg naa mais ba. Moutala. saa mais vingt minutes boo ko wanee moom wane nga li dama la moo tax ma ne ko est ce que Balla Gaye dina nangoo wane cent pour cent li mu liggéey bu ko neexee. ci kaw euh, encadrement non wan ni la lépp la wane. yow lan maa la wan ne la Balla Gaye 2 li mu entraîné lépp la wane. ma waaj xanaa Balla entraîné wu pour combat rek wala dafa war a dem Afghanistan. non mais dama la bu la neexee dama la ni. Balla Gaye 2 nax na ci contre Modou Lo bii passé Balla Gaye 2 nax na Modou Lo. di wane ay fausse image yoo xamante ni sii nii ak la Balla Gaye 2 liggéey réellement après la ko nit gis sama waaj yow dama ni képp si nga gisoo xamoon naa ne foofu ngeen koy xalaatee ay fausse image wuy def ay fausse image yaa ngi dégg te Bombardier du gone. waaw bu baax bëri nañ laale nañ Balla Gaye bëri na fekk ku ne gis nañ yaa ngi comprendre tey jii Bombardier bu doon calculer Balla Gaye ci bëri bi la koy calculer mais pas taxaw xeex déglu ma bu baax li ma lay <laughs> li ma lay wax ni dafa leer dama ne la du taxaw xeex la bëre bi d'accord naa ci mën na cee tiit kon li ma leer dama ne dafa leer dama ne la coach bi yoroon pad yi di di di di yor Balla Gaye coach bi rek bu fekkoon ne Balla Gaye day naxe coach bi placement am rek da leer ne kii il a jamais touché des parties de ses mains ok ah, boo weddee nga dem xaaral ma ñëw rek dafa ndànk gis nga mbër fi looy laam-laamee da ngay dem Google nga bind wala nga dem YouTube nga bind da ngay gis dama lay wax un deuxièmement Balla Gaye pare na oui physiquement pare na mais est que Balla Gaye intérieurement pare na parce que boo population boo laajee oh. Gibson sama frère boo ko laajee dalay lay expliquer gis nga pronaxit ñaata mbër ñoom ñooy léewtoo léewtoo bu yàgg amut bëriwut mbër mu léewtoo dix minutes sonn nañ pare nañ ci yooyu yëpp Balla Gaye mën naa dem INSEP di fa travailler loolu y a problème mais dama lay wax ne la booy jël combat di ko préparer faw nga jàkkaarloog ñi nga xam ne même poids bi ñuy yor sa combattant gis nga Bombardier Balla Gaye ki mu doon bëreel xool li mu toll kooku Bombardier ko non sama waa ji sama waa ji ne gis nga yow yow yow da nga juger rek yow xam la mooy problème bi man nangu naa li nga wax mais dama lay traité yow da nga loo xamul non non yow non non dama ne la yow non non déglu ma kët yow da nga dama la ni dama ne ko nga ni dama ne ko waaw dama ne ko yow da ngay juger loo xamante da ngaa juger loo xamante ni di sii rek li nga gis am nga ci droit ci li dama ne ni mais est loolu man dama ne ba léegi maa ngi ay est ce que dama ne ni est ce que Balla cent pour cent li mu denc la wan waa àddina ak mu liggéey. moo tax man dama mu jaar parce que normalement mën naa. gis nga sama waa ji baal ma tënkal la wax ji may ragal a wax baal ma tënkal wax ji nit ragal a wax comme man comme sax sama yaram xës na tàng ba man man ñeme naa koo wax. léegi man ñi mën naa ko wax dama la ni amul ma ci ragal. Ah. combat bi Bombardier amu ci sens Balla Gaye de da koy daan. d' man du ma du ma Bombardier man du ma Balla du ma Bombardier dinaa la ko wax. écoute moi. ngir yàlla. Balla Gaye de li mu pare Balla Gaye de li mu préparé nii ma gis ko ak ligne bi mu yore nii ah, ak Balla Gaye de physique bi mu yore. ak Balla Gaye de ni mu taxawee. deux secondes Balla Gaye de day day fawee Bombardier. organiser ma réorganiser débat bi. exactement bugguma bugguma ñu ci. combat bi dama bëgg dem ci état physique bi léegi coach yaa ngi leen expliqué léegi dama bëgg coach nga wax ma Balla Gaye on l'a vu même bu fekkee deful toog su nu mais on l'a vu mu yëkkati ay poids jóg taxaw physiquement. est-ce que Balla ngi leen di diglu de. <laughs> waaw lépp mais est-ce que physiquement Balla à sur cent sur cent physiquement sur cent. pour combat am digganteem ak combat ah, pour cent ñaata pour cent ngay jox Balla Gaye. Balla Gaye mën naa ko jox deux cent pour cent mooy ma leen expliquer encore nee leen du ma Balla duma ma Bombardier du ma wax rek pour faral mbër man faraluma kenn damay wax li ma xalaat ak li ma gis saa waay préparé na def na ay vidéo bu fekkee ne man damay wax ci côté juste préparation staff bu doon may staff bi du ko def ça c'est numéro un ñëw ñëw Sénégalam ndaje bi nit ñëpp ñëw. bu doon man pour focus su mbër mi du ma ko def so c'est ça c'est professionnel ok je parle de ça donc bul mélanger bul mélanger professionnel. mais saa waay nag booy dem tàggoo booy dem tàggoo boo dikkee war ngaa nuyoo nag. booy dem tàggoo. mais d'accord booy dem tàggoo boo dikkee war ngaa nuyoo. Mourtala <laughs> maa ngi ñëw ci yow. et eh, coach coach ñëwal ma ci physique bi. léegi physique bi di ko wax mën naa kaa jox deux cent pour cent Balla Gaye xam nee naa la génétique am bu amee génétique bu baax pour sa yaram defaru jafewut. Hmm. wax naa leen nee naa leen xaw ma lan laay wala bombardier lu muy tiit mais bu fekkee ne taxaw xeex la day metti dana metti ci ñoom ñaar ñëpp bu dee bëre bi nag tiituma ci. léegi yow moom deux cent pour cent. ma sànq combat bi boo déggee ni mbër bi dóor na moromam mu daanu kan nga jàpp ni moo dóor moromam mu daanu. ñoom ñaar ñëpp mën nañ ko ñoom ñaar ñëpp. kenn ku ne mën ngaa dóor sa morom mu daanu ñaari punkal yu bëri ne te dóor mu daanu du ci càgg ne dama am doole dóor ci point la rek bu la laalee ci point da ngay wàcc ak noo mën a toll bu la laalee ci cin da ngay wàcc bu la laalee ci temp da ngay wàcc loolu moom xoola xale bu ndaw sax mën na laa kaw en fait moom léegi Mourtalla Mourtalla lu tax nga jàpp ni Balla Gaye mooy dóor mu daanu bu dóor mu daanu amee bés Balla Gaye xam nga benn affaire dama la koy wax Balla Gaye de même naturellement ko ku xam Balla Gaye xam ni Balla Gaye doomu bu fekkee ne euh, loxo yu diis la rek am na nu lay amee dëggantaanu njaay ak poids bi Bombardier yor bu ko yóotoo bu ko dóoree Bombardier day ñëw day defee nu lu leer laa lay wax te Balla Gaye de instant bi gis naa ci moom benn tiktak boo xamante ni sii man loolu lu leer laa lay wax Balla Gaye de gis naa ci moom loo xamante ni sii pour nit ñëw ni bëxër ña fekk ko fa mu ne dina jafe te lu gën lu gën a mën a lor Bombardier mi ngi ci Balla Gaye de mooy lan boo nee te Bombardier lu mu yóotu bu ko jotu fekki na ko la sama papa doon wax naan bu may bëree lan doon seetaan làmb ji mu ne oh, waaye da koo dóor mu daanu sama papa daan moo ko def su ma la wéyee wéyul damay wéy mais Bombardier bu la wéyalee boo wéyut ma la ni bu dóor mu daanu day am heure bu yóot see Bombardier bala Gaye 2 Balla Gaye 2 li ma gis mu liggéey ko néew naa gis jamono jii nit ñëw fekk si Balla Gaye boo ko fa fekkee da nga fekk mu neex ko mu def la la mu la bëgg a def mu gis la mais Balla Gaye de yor na benn tic tac boo xamante ni eh, bu ko Bombardier dóoree bu ko bu ko Bombardier gëddee bu ko dóoree Bombardier day ñëw daa man naa man naa daanu du daan ndax Bombardier du daanoo ginnaaw de mais day daanu see kanam. Hmm? maa la wax lii ku daanu bi nga jox Bombardier foo ko teg. xam nga li hmm. ñoom ñaar buñ taxawee di xeex. bu arbitre bi soufflé bala damaa gis muy def erreur boo xamante dama gis Eumeu Sène dóor ko ci laaw ñaari yoon gis Gris Bordeaux yéeg ko ci gauche droite seetaan combat mag saalum saalum saalum saalum ko ci mooy tibb boobu muy tibb suuf di jóg tibb boobu muy wàcc di sëgg di jóg boo taseeg mbër bombardier ci ngam ngay jóg da ngay toogaat foofa li ngay wax ni du waaw non waaw léegi man damaa nangu li ngay wax ba pare balaa balaa kër di ñëw. Euh, kër si moom xam naa bu ma jàpp bu ma jàppoon tey moom xam naa ne du ma doy mais wuy ma la foofu. maanaam sëñ yow kër si man jàpp. maanaam xeex boobu foofu noonu. Balla heure bu xeex bi takkar naa see. Balla seetaan waaw léegi diglul ma diglul ma ñëw diglul ma ñëw. Balla heure bu xeex bi takkar naa am njaay joxal jóob am njaay joxal jóob da koy boole ak sëgg siggi sëgg siggi tibb suuf bàcc ñaari loxo yi Balla ñime na loxo bi diis na mais xeexu erreur lay xeex. xeexu sa waay a xeex ñi may xeex man gis naa mbër yoo xam ne bu takkee gant ak ay xaaral ma dox la. gis nga kaaral am nga nag laa dafa am loo xamante diglu dafa am loo xamante dañ koy waxante comme yow ni nga ñimee taxawee waxee ne Balla Gaye day daan Bombardier dafa am erreur yoo xamante Balla Gaye da koy def ci biir xeexam buñ digloon tey rek dañ koy waxante kenn ku nekk ci jàng ci analyse même moom bu ko déggee am lum ci jàng mm. kii nii di wax nii xam na ne moom mii moom entre moom muy di def MMA moom xam na ne Balla Gaye numéro deux boo xeete yàlla tiim ko xam na ne Balla Gaye numéro deux xeexub erreur lay xeex Eh, loolu kay sama première live laa ko wax chinois yi. ok waaw léegi man li ma nanguwul li ma nanguwul bës nangu nga léegi man li ma nangu. xoolal ma bërki démb rek yaa ngi xool benn vidéo bu booy ñang du yaa ngi gis booy ñang vidéo bu mu def di dóor sando di sando di sando loxo yi ca kaw la nekk. une deux te yaa ngi comprendre merci beaucoup a une autre loxo yi ca eh, la nekk du wàcc. du waaw léegi man su may waxee man su may waxee xam nga tey dama lay wax benn affaire ni la dama bëgg ngeen. waa léegi Pape Diop nañ ñëwante yow tamit may ma ñëw man tamit. man tamit wax la sama xalaat dama la ni. dama la ni man ci sama jëmmi boppam maa nanguwut Balla Gaye 2 mu pare nit man ko man Mourtalla. ko man ma wax laa gis nga takk ay gants ak sato ci làmb man gis naa mbër yoo xam ne boo leen seetaanee entraînement nuy préparé combat da nga naan ñii noo man birisili birisili wala déggoo la gis nga jàngu xeex ñime xeex a ko gën Balla Gaye daa ñime ab xeex jàngu xeex Bombardier daa ñime xeex waxuma ni ay nang mais dama la ni man Mourtala maa mënta nangu Balla Gaye de mu pare cent pour cent man ma xam ne pare na moom ma gis ko mu pare nangu ko nit man Balla Gaye de man du ma nangu loolu foofu laay waxee te ban egg ca loolu dañ la cee dàkk loolu dañ cee dàkkoor ak yow moo tax nag moo tax nag mënu maa mënu maa gis ci moom Balla Gaye de bu paree danger amatul ci kanamam. Balla Gaye de bu paree danger amatul ci kanamam. waaw boo boo paralee mbër du neex. du neex kaama la Seexul Xadim laa lay gis nga déggu ma Serigne Moutala Mbacke laa lay gis ne bu fekkee ne dama faral Balla Gaye de yàlla bu ma tegaat sànq sama tànk Sénégal man mbër laa yemale mais damay dégg xam nga sànq ni ngi woon benn affaire bës yaa ngi ciy génn sax ci affaire bi mais dañ ciy duggaat. dégg nga ma ñëw ba pare. eh wuy ma. waaw bu dee bu génn xaaral xaaral. yàlla. non danoo saaraan ñun ñëpp saaraan li ngeen nekk dafa neex. waaw non mais mais damaa bëgg Pape Diop mi nangu. li ma koy no mu déglu ko ci déglu li ma koy wax bu baax. yaa ngi dégg wax de. mais mi xam na ne liñ lay wax ñun. liñ lay wax Pape Diop yow ragal naa kër ci mais ragalu ma la mais damaa bëgg a déglu ma. mais xeex daam am yoon. xeex dafa am yoon Mourtala xeex dafa am baas xeex dafa am baas booy déparé xeex dafa am baas yi ma gis yëpp dama kii coach bi il se de sa gueule. ak su comprendre dafa am ah. maam maam maam waxuma Balla daa am problème de coach moo am problème en fait. ba nan la coach bi problème. su ma déggee waxtaan bi kon coach euh, euh, coach euh, Bakary Sakho. waaw moom jàpp na ni Balla physiquement il est prêt à deux cent pour cent. mais technique boxe yu mu doon jàng in. technique boxe bi moom laa lay wax nag ci technique boxe bi Balla peut-être moom pour moom jàngal nañ ko dara. sa waay Balla Gaye Balla de la Balla Gaye bu fekkee ne luy daan Bombardier la Balla Gaye de bu fekkee luy daan. may naa la juróom dërëm ma pare baa ma pare dégg wuy <laughs> ma baa ma pare. waaw waxal ci ma gis dama la expliquer rek ne la. waaw mën naa seetaan nit muy def box keneen def box ma xool seen entraînement ma wax la ne la bu fekkee ne problème bi du Balla problème bi c'est son coach coach bu déplacement wu coach bi rek nee naa leen bu leen jaawale MMA ak lamb. MMA dafa am déplacement am làmb am déplacement am waaye dafa am xam ne ñoom ñoo ko nuróole open gauche open droite ñoo koy nuróole ken mënu ci dara gauche droite ñoo koy nuróole kut kut rek a mu tibbee làmb ak wéq donc nay leer coach bu ma gisee coach bu taxaw di mel ni poto taxaw taxawaayu poto balla tiim la nga koy dor la muy avancé tànk def comme ça xam nga ne loolu xeexut nañu waxante dëgg yow mii nga xam ne mosoo def xeex sax boo xoolee nga naan ne lii munu cee daan bombardier waxuñu Balla mooy bëre yaaw jaal Balla mooy bëre Bombardier mooy kan mooy Bombardier mooy Bombardier mi def MMA mi xeex ñi nga xam ne doonuñu ay mbër xeexu lañ jàng box lañ dem jàngi. sama waa ji ba d'accord naa waa léegi may ma ma agsi wax la benn at. Balla Gaye numéro 2 dafa am ay dama lay waa léegi damaa bëgg na may ma man tamit ma agsi Balla Gaye nu Balla Gaye Balla Gaye numéro deux laa la wax dama la ni bu ko Bombardier daanee ci combat bii bu ko daanoon bu ko daanee ci combat bii non non déglu ma ma déglu man kay dama non waxuma la ay gars dama la ni déglu la Pape Diop man déglu ma xanaa dama la ni man lépp lu may wax te ñemewuma ko wax ci yàlla la mais ay doomu aadama la yàlla boole ñuy wax yaa ngi dégg man bu ma daanoo tamit damay nangoo ñëw toogaat ci émission bi ma xool li daan Balla Gaye di wala daan Kane man bu la naan diw laa gis te kii mooy daan wala nangam ak nangam mii lay daan bu daanoo mu ñëwaat taxaw nu taxaw waxaat ni lii moo ko daaneel ak lii moo ko daaneel. Eh, Mourtala bëgg naa la poser question. posé ma. foofu laay tëjee Balla Gaye ak Bomba ji posé ñett parce que loolu moom mooy ubbi suñu laaj di wala ñëw mën a yéen ñett. waaw. tey dañ doon wax waxu tur mu daanu fan lañ koy séntu ak waxu état physique bu Balla Gaye ndax moom moo ñëw récemment. mais tey. Balla Gaye Bombardier Mourtala fu muy teg xaalisam foofu rek laay tëjee yow après prochain live nga leeral ma lu tax nga ne ma foofu ngay teg sa xaalis bu ma fekkoon damaa yor mbuusum beñe mu ñaar fukk nar koo ndékkee nga yor un ko ci Bombardier sama mbuusum beñe teg ko ci teg ko ci teg ko teg ko ci teg ko ci Bombardier sama teg ko ci Balla Gaye sama mbuusum beñe dama ko teg ci <laughs> fukk nar koo ndékkee uh-huh. nga jël un million teg ko ci nga jël ko Balla Gaye de ni ma tegal mbuusum beñe mi ci Bombardier dama ko teg ci Bombardier bu fekkee sama kàddu ngay dégg. bi waaw. koy ah, teg sa regarde regarde man man du ma teg mënu teg sama xaalis ci kenn comme li may wax faralu ma ci kenn. Mm-hmm. non du far du far en tant que. du far de du far de en tant que sportif. day day leeralal prochain live bi kan mooy favori combat bi. favori combat bi man baa Gaye laa ko jox. Papa Diop numéro 2 kuy sa favori combat. dama lay wax benn ñaari affaire nga diglu li ma lay wax. Pape Diop nag bu nu kocc nag waxal benn dong nag rek diglul su ma déggee ñu ne su ma doon nelaw seetaanuma làmb ji ñu ne làmb combat bool bay Balla Gaye ak Bombardier ci bëre la jeexe dama naan Balla Gaye daan mais su ma déggee ñu ne ci dóor mu daanu la jeexe dama naan Balla Gaye Bombardier daan man da xam nu ma ko jàppee guddi nga mënuma laa tëb gàtt nga mënuma laa bëri nga mu mu yéex Balla moom mu gaaw Balla moom man fa taxawee man moom bu ma lu may wax damay doon lu